ñu tàmbalee xibaar yi wàllu yoon ak activiste bi di Bah Diakhaté bi ñu def garda bi euh, ci euh, démb ak léegi ndax euh, offense au chef de l'État ak it wasaare xibaar yu wérul lool la ko yoon toppee jaare ci vidéo yoo xamante ni atum 2022 ak léegi la woon ca mu daal di ko siiwal ñaar fukki fan ci weeru mai bi nu génn ñett ci avocat taxaw ngir daal di ko sàmmal ak ak fom nee na nag dañuy xaar ba nu jàllale ko ci kanamu procureur laata ñuy soobu ci xeex bi xeex bi di ci wàllu yoon muy bataille judiciaire Mountakha Fall ñu teewlu koog Ibrahima Diamé. audition bi nag euh, c'est très bien déroulé parce que moom tontu na question yi nga xam ni moom la ko enquêteur yi posé yëpp yu ci bari sax indi na yu leer ci ay wax yi nga xam ni moom lañ koy reproché. am na yoo xam ne nag moom nee na def ko waaw yu ci bari tamit nee na nee na def ko. donc aujourd'hui euh, dañ pare audition bi ñu placé ko garde à vue et que donc euh, normalement comme placé nañ ko garde à vue peut-être dinañ ko defeere devant le procureur de la république bi nga xam ne ni moom mooy mettre des poursuites ci affaire yi mel nii donc ñu ngi xaar peut-être son déferment devant le procureur bu fekkee ni loolu am na incha allah ñun dinañ ñëw taxaw euh, défendre ko foofu ci kanamu ci kanamu procureur tamit bon c'est quelqu'un boo xam ni euh, ku courageux la donc répondre na à toutes les questions apporter également des éléments de preuve ci li nga xam ne ni moom lañ koy toppee ba tey ci xibaaru suba seek RFM werante ak euh, réero diggante ñi dëkk euh, ak commerçant ya euh, farek géejawaay naka noonu it kilifay gox ba li ko waral nag mu ngi tukkee ci tabaxum ab centre commercial kule kuréel ak ñi dëkkee Nimzat Angle Mousse ak Bagdad ñoom ñooy joxoñ maire ba Racine Talla ne daal dafa daal di tas wala bokk màbbal case maternelle bu fa nekkoon toll ci yaatuwaayu ñetti junni ak juróom fukk ak juróom-ñetti mètre carré ca marché bu bees ngir tabaxu centre commercial boo xamante ni daf ko jaayee lu ëpp ñeen fukki million cantine bu ca ne waaye loolu lépp nay tuuma mairie ba weddi nañ ko ba mu set wicc leeral yi Salamata Ousmane Diallo. na dañ na dañ na dañ na dañ ñoom ñëpp ñu daal di ay morso yu xonk di ngir daal di wane seen ku naqar ñi ngi dajaloo ci barab bu njëkk bi nga xam ni fa la école maternelle Pikine 2 daal di nekkoon te jamono ji mu nekk ci chantier collectif bi ëmb ñi yeewoo ci Nimzaat di yuuxu seen ku naqaru xol ma jigéen wàdd moo yor seen kàddu école bii nga xamante ne jardin d'enfant la am na fi ñeent fukki at ak yu topp ñu xëy xëy ñu ne Racine Talla moo ko jël def ko ay cantine def ko centre commercial jël place yi di ko jaay géejawaay marché bu bees wax naa Nimza lii bu suñuy doom yi jàngee di weddu yi ñu teg seen ndodd yépp te xam ni daañu yóbbu mbir mi fa mbaxane doone benn moom mu wax loolu ba mu na porte plainte parce que def na accusation yu grave centre commercial bi lu tax moom toogoon nañ fi sous préfet bu Pikine jël benn arrêté ne bis ni ko tey marché bu bees jënd caare kaw lañ koy jox léegi moo koy collecte loolu tax gis ak benn promoteur moom si boppam moo jënd boulangerie bu nekk école foofu ñu xool case supérieure bi nga xam ni bañ ko fa defee mu ah, leen aménager foofu bu ñu sukkandikoo ci jaaykatu taabal yu marché bu bees centre commercial bi la dee dafa ñëw ci waxtu bi nga xam ne sax ca lañ ko soxlawee ndax dana tax ñoom ñi ñu daal di gën a ñoŋal seenuk liggéey bu ñu sukkandikoo ci Saliou Diouf centre commercial bi nag suñu projet la ñun ñi nga xam ne ñooy tablier yi ñoo ko bëgg marché bu bees parce que bëgg nañ li am si yeneen marché yi muy Pikine di HLM suñu sañoon marché bees tey noonu lay mel lenn nag loo xam ni duñu war a bàyyi xel la bu baax case des tout-petits bi nga xam ni collectif bi mu ngi koy daal di wax jotewul dara ak école maternelle bi nga xam ni tout tànk yi ñu ngi fay daal di jàngi ba léegi salamatu suma njàllu géejuwaay rajo Futurs Médias jërëjëf soxna salamata cité Sonatel ci sax mbaawit naka noonu réeroo ci wàllu suuf ña fa dëkkee ñoo àndul ñu ne ak benn promoteur immobilier bu ñu ne daa bëgg a tabax euh, ca bërëb boo xamante ni ñu ngi fa daal di woon juma école naka noonu terrain de football loolu nag euh, bi nu janook taskatu xibaar yi démb ñoom ñu dëkkee foofu cité Sonatel Cosersone ci ak Mbaaw euh, ñu ngi sàkku àtteem njiitu réew bi ñu ne euh, dañu ci ànd ak président conseil de quartier ba Moustapha Ndiaye ak Abdou Diouf Diagne. lii dóoru ren daaw ko njëkke fële ca bassin bi yéen ñi ngeen ba mu ko defee ñu am ci taxawaay bu mat sëkk ñu am ci ndam ñu ne fii nga bëgg jël ay parcelle mënul nekk parce que fii yoonu ndox la ñun ba amee ñu jàppan yi fi jeex na mais comme daf ñu war ne dafa gudd loxo mu jaar ak ancien régime bi ñoo xam ne ay xaritam lañu ñu fexe fexe ba mu benn arrêté ministériel boo xam ne le janvier lañ ko daté te jàpp naa ne gouvernement boo moomeelu ñun ñi fi dëkk la Sonatel moo ñu jaay titre foncier fii titre foncier la te dama jàpp ne titre foncier nit bu état deman sax ba bëgg fee changer dara mais état nit dëkk lay waxal mais nit mënul jógee fële rek ñëw ci titre foncier jàmbur parce que xam nga ministre bi wala xam nga directeur ngeen fexe seen ay pexe ba indi la benn jël décision boo xam ne danaa la waaw demal léegi fa nga xam ne kat fa ñu war def jàkka ja fa nga xam ne a am ndam day sonal boppam rek fekkeen ci lu jub la nekk du bàyyi ba guddi muy liggéey fii guddi la ko doon liggéey dañoo mujj obligé sax dem saisir le commissaire pour mu ñëw waxoon guddi na arrêté travaux yi muy def fii ci cité bi bi muy ñëw nag ànd na ak ay nervi ñun daa ko ñoo recruter ay mooyu jël ay rek yàlla jox nañu ko nañ jël ay comme moom mais nag ay responsable ñoo fi dëkk dañ jàpp ne ci dëkk yoon lañu nekk mu kon euh, Moustapha Ndiaye ci kàddu yi kon ñu dëkkee ca euh, Sonatel Coserson ca Zac mbaaw ak euh, seen ñàkk ànd ku promoteur bu bëgg tabaxee bërëb bu ñoom askan wa sóoraale woon ne juma école ak terrain de football ngir kon askan woowe ca cité Sonatel Coserson ca Zac Mbao RFM juróom-ñetti waxtu tegal juróom-ñetti minutes. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. liggéeykat yu collectivité territoriale yi ñoom euh, ñoo ngay yëkkati kàddu yooyu ñoom euh, daal di euh, delluwaat buum ci boy boy ga grève ñeent ci fan yoo xamante ni dañu ko fas yéene tàmbali tey jile yooyu liggéeykat nag la leen merloo mooy ni premier ministre Ousmane Sonko waxee ñu ne ñeel seeni mbir ak la mu ne xelam mënut a nangu yaatal gi ñeel payooru liggéeykat yi du administration Sénégal lawal gi ba ci collectivité territoriale ñu jàpp ne du loolu la leen waxoon te jël benn moo waral seen ak yëglu dañu ci ànd ak seen porte parole bu intersyndicale bi collectivités territoriales yi Ndiaga Diop ak Hadj Ndiogou Diène betteel bu bu mag a mag la ñu am ci discours euh, euh, premier ministre Ousmane Sonko euh, bi muy taxawal la conseil interministériel interministériel sur sur l'éducation foofa wax nañ ci grève collectivité territoriale ah, mu ngi xalaat ne voilà <laughs> da da bëgg a ci ci article vingt neuf bi nga xam ne moom moo moom mooy jëmmal payooru liggéeykatu euh, maire yi nga xam ne ni ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo bi ñun nag jàpp nañ ne ñaari xar kanam la am xar kanam bu njëkk bi mooy Sonko bi ñu xamoon ñaari Sonko bi njëkk bi mooy Sonko bi nga xam ne moo nekkoon opposant ak Sonko bu bees bi nga xam ne mooy premier ministre doon na wax doon na wax à son temps maanaam wax nañu ne yéen kat euh, vidéo baa ngi fi ñëpp a ngi fi ñi koy gis mu ne yéen kat dañu leen a négligé parce que lu ñu euh, régime Macky Sall bii nañ lañ mën a seetaane euh, ñaari ñeer ba ñetti weer liggéeykatu collectivité territoriale di grève te kenn waxu ci dara booba kat ñun de kontaanoon nañ ci li mu wax lool parce que booba opposant la mu ngi wut nguur gi mu ne lu tax ñuy toog ay weer te saafarawuñu mbir mi pour que ñu am solution bu définitive. intersyndical bi amaguñu gisaguñu lu ñu xam décrété nañu quatre vingt seize heures à partir du mardi vingt mais un mai jusqu'au vendredi vingt quatre ci Sénégal yëpp. mu nekkoon euh, Ndiaga Diop euh, di porte-parole intersyndical travailleur yu collectivité territoriale yi. Euh, président union wala boog syndicat national liggéeykat yu technicien ci wàllu mbay mi ñoom nag euh, grève ak boycott gi ñu namoon ñeel wàllu commission di kuréelam cëddalem njiw mi Euh, ak it euh, libéré bulletin d'analyse yi loolu lépp dellu nañu ci ginnaaw ngir campagne euh, mbay mu jaar ci yoon li ko mayee bokk na ci ndaje seen digg ñoom waa Sintas ak kii di secrétaire d'État chargé des coopératives Alpha Ba moo waral gindiku gi dañu ci ànd kenn ci ñoom mbootaay googee di waa Sintas Mor Diouf ñu teewlu ko Georges de ci Diop. waxtaan nañ ci ñun ak respect ak njëkk. wane nañu ñoom li leen tax a jóg mooy secteur bu dal. te lii di CFPH euh, incha allah dinañ ci jël ay mesures yu mat sëkk pour que jàmm ji ñu euh, woote ak ji ñu bëgg mu dellusi fa. bi nu jàngatee loolu nag en attendant danan waxtaan ak suñuy euh, camarades ci base bi. waxtaan ak centre yi waa CFPS waxtaan ak suñu instance yëpp mais pour wane ni ñun réew mi rek moo ñu ñor pour wane ni ñun tamit liggéey rek moo ñu ñor te xam nañ tamit solo si nga xamante ni jiwu muy semence am na ko ak engrais xam aussi euh, solo si nga xamante ni euh, lii ñuy wax bulletin d'analyse am na ko looloo tax ñu jël décision en attendant ñuy waxtaan ak base bi di wax ci wàllu nu ñuy dakkale grève bi lépp luy bulletin d'analyse jox nañ ndigal suñuy ndaw pour ñu joxe ko lépp luy commission bi nga xamante ni dañ fa war a teew pour saytu jiwu bi pour joxe ko ci condition yu baax loolu tamit euh, danañ ko wax nañ suñuy ndaw ñu participer ci commission yooyu en tout cas lépp loo xamante ni mën nañ ko def ba nga xamante ni campagne agricole bi du am benn lënt lënt ci suñu wàllu liggéey ñun en tant que euh, euh, en tant que liggéeykat yu aju ci agriculture dinañ ko def mu nekkoon kàddu yu Mor Diouf bu syndicat national liggéey kat ak techniciens yi ci wàllu mbay meeg nanu noppee kon tegaat euh, bépp ñaxtu ci suuf ngir ànd ak kilifa yi ci campagne ak mbayam 2024 gi président union nationale nappkat yi ci wàllu nappam cosaan yi muy pêche artisanale bu Sénégal mooy yëglu euh, ndax géej géej euh, gaal yoo xamante ni mu ngi wéy di réer géej ndax moom daanaka lim na ko ci gën caa ñaar yoo xamante ni def nay téeméeri téeméeri doomu aadama ba ca njëkk ma nga ba woon Joal maanaam Jiwaalo ñaar fukk ak ñeent ci fan a ngile doomu aadama ak ñeent fukk ak ñett boobaak léegi France daal di xiideen am na beneen boo xam it yem nañu ca xotti xotti gaal ga waaye gisuñu kenn ku rëcce ci jéey ja moo waral yëglu président UNAPAS Makumba Jéey ñu teewlu ko Ousseynou Diop. waaw am na gaal gu tëmbee Joal. Une pirogue qui avait quitté Joal est introuvable. Cela fait aujourd'hui 24 jours exactement. Il y avait à bord des enfants et des femmes. Une autre embarcation qui avait quitté Yen à bord 143 personnes, dont des élèves qui se baignaient là où elle a pris le départ. Cela fait exactement également 15 jours qu'elle est introuvable. Les pêcheurs nous ont également informé qu'une pirogue en partance pour les îles Canaries a été retrouvée en haute mer. Aucune personne n'a été trouvée dans la pirogue qui est complètement endommagée. gaal googu la woon gaal kenn fekku ci benn doomu aadama mu ngoog euh, kàddu euh, njiital UNAPAS ci euh, gaal geeg gune yi wéy ba tey di jël yoonu géej gi. xibaaru suba seeg RFM ngeen di teewlu ba tey euh, ñu waxtaanee wàllu fonction publique bi maanaam liggéeykati nguur gu Sénégal wuute gi ci am ci wàllu payoor yi di rémunération yi ñu fàttali ne keroog ci jam ñaajo premier ministre Ousmane Sonko xamale na yeneem euh, dugal ak yamale ci mbir yi ci conseil interministériel ba woon ci jam ñaajo loolu dalal na xelu syndicat yi ndax nee na ñoom ak léegi bokkoon na ci seen ki tawat ak jàmbat ngir justice sociale Kumba Sanjaan Diouf anam yi ñuy fay liggéeykat yi ci biir fonction publique dafa suutante njiitu jëwriñ yi Ousmane Sonko xamle ko ci conseil interministériel ñeel examen yi ñu dëgmal alxames bi wees ca jam ñaajo loole nag des ko joyanti ci kàddub Ousmane Sonko Cheikh Diop secrétaire général CNTS FC ci kàddoom lu njëkk tey joytub syndicat yi ñoom njiit yi toog ba waxal ko seen bopp syndical bi yépp ñu koy rafetlu parce que yëg-yëg yi benn la dafa jur yaakaar ñu jàpp ne système de rémunération boobu état moo defoon effectivement fonctionnaire yi pay gi leen di tënk indemnité yi leen di tënk ak yenn avantage yi wax dëgg yàlla dafa xam xaj ak seen bu bu leer classe syndicale yépp nag ne woon lii nañ ko corriger parce que jaaduwul ci benn fonction publique ñii am lii ñële amuñu ko tey jii bu autorités yi amee ouverture wane volonté ne loolu dinañ ci woote waxtaan pour ñu regle ko dañ koy rafetlu Ibra Diouf Niokhobaye beneen syndicaliste jiite confédération démocratique de travailleurs du Sénégal CDTS première ministre bi waaye it ñu war a suuraale lii di fonction publique locale. ndax bu fekkee dafa dafa ñëw fekk fi ay disparité dafa méngoowul euh, ci statut fonction publique defaraat ko ba mu jëpp te waxtaan ak nit ñi corriger ko nun dañu ci ànd ak moom te de au niveau de la CDTS et de des def nañu ci ay réflexion yoo xamante ni mu nekk loo xamante ni lii day tax jàmm dellusiwaat mais également fonction publique locale ndax ba ay ñooñu aussi dañu nekk ci grève depuis deux ans et demi di réclamer ay droits te li ñu demandé yëpp loi bi prévoir na ko application de la loi la ñu wax au niveau des agents de la fonction publique syndicalistes yi euh, gis ne urgence saafara wu ndànk-ndànk faw ñu déglu leen toog ak ñoom waxtaan wante nguur gi fi ne disponible it jërëjëf soxna Koumba Sandiane Touba Mbacke la ni wutaleeg askan woo fa rafetlu ñaar fukk ñaari dogal yi nga xamante ni jibee na euh, ci nguur gi euh, ngir xeex geek waame gi euh, Sénégal jamonoy nawet bu ca ne ndax xam ngeen ni Touba moom it dafay sonn lool ci wàllu ko waame donte yi milliards saa su ne ñu def ko ca ci xeex bi ci weneen wàll askan waa ngay sàkku foofe ak audit maanaam càmbar ñeel bépp projet assainissement bu nu yëkkati ngir Touba Mbacke Pambay jaaw garaju allo taxi yi nekk fii ci Touba chauffeur yi ku nekk yaa ngi taxaw di lijjanti ay client Dame Diouf mi ngi ñuy xamal ne dogal bi nga xamante ni nguur gi jël na ko jëm ci xeex mbënn mi rawatina fii ci dëkk bu sell bi ñu ngi koy rafetlu bu baax. nawet bi fii ngay gis màggal Tuubaa gaa yi ñëw événement baa yi ñëw tabaski du am fu mu jaar ak màggal Tuubaa kanaal yi daanaka kanaal yi dum dum jàll la ndox mi day kanaal xaaj bu fatt nag Tuubaa fii. at mu jot nag Mbaye Ndiaye moom ak ay dëkkandoom di am ay jafe-jafe ci wàllum inondation loolu ba moo waral nga xam la ne dogal yi bu ko gouvernement bi jëfee dina leen jàppale bu baax a baax. waaw fii moom wax dëgg yàlla inondation moom métti na trop métti na trop ndax deux vents yi di jëm si jumaa ja dëkk bu sell bi heure bu nawet bi ñëwee moom benn oto yi benn vent la ni jaar te moo fi indi ay soog yu bëree bëree bëri indi fi embouteillage boo xamante ni day xat trop. teewul nag ñi nga xamante nii ñoo di askan wi yeewoo ci Touba di xamle ni ay milliards yu bëri investir nañ ko ci inondation yi ba tax ñuy sàkk ci nguur gu bees gi mu audité projet yépp yi nga xamante nii teg nañ ko ci dëkk bi ngir jëm ci wàllum xeex mbënd mi chaque année nga dégg ñu dugal na fi ay milliards ay milliards te man milliards yooyu man jaaxal na ma tamit fu mu dugg dugg si inondation moom wax dëgg yàlla ndax ma nit gisuma ko fii mbedd ma day taa bu nawet jotee nit ñi génn kon milliards yi fi ñu ko dugal nañ ko audit ci conseil interministériel bi amoon gouvernement bi dafa jël ay mesures ngir xeex inondation yi li nga xamante nii moo concerné wàllu Touba nag askan wi di ko rafetlu bu baax te xam le ne loolu suñ ko defee màggal gi dina am te inondation information yi du leen sonal RFM Touba Pape mbay Diaw RFM Sport maa ngi lay ziar Malal maa ngi lay delloo ziar Alassane sant yàlla ndox mu bari moom xewal la xewal la li ma gis fii ci ay hmm. ak yeneen réew yi <laughs> que li am fii du inondation ah ñun dañoo war dañoo war a jëf jëfandikoo ndox mi sax pour mbay mi gën a soqaliku voilà mu ko waaw tey sant rek ah, tey sant rek lépp gënu bekkoor wallaay dëgg la jaajëf malal bisimilah acca nu doxal ak football jigéen yi ñoom seen i mbir bekkoorul ci njeexitale bis bi ñu nekkoon ndax dañu nekkoon ci tournoi UFOA bi ñu jagleel zone A bi ñi amagul ñaar fukki at ci Sénégal daal dinañu football dóor Gambie ñaari bal ci dara Juliette euh, Ka Lamo bokk na ci jigéen ñu ni ni moo gën a xarañ ci googu lay jongante yëkkati nay kàddu ni lii ndorte la te jënañ jox seen kéem kattan ba raaya ji des ci réew mi ñu déglu ko ak Soro bon c'est tout d'abord un immense plaisir que je partage. Euh, waaw mbégte euh, bu rëy nag la am ci euh, titre meilleure joueuse bi ma jox ci joxante gi loolu nag dama ci remercier rek staff bi bu baax waaye tamit sama coéquipier yi nga xamante ne ñoom ma permettre ba ñu ràññee ma ci jogante gi defuma leen nag lu dul rek daal di suivre consigne yi nga xamante ni moom la ñu suñu coach jox. yaakaaruma nag ñu teggi suñu tànk ndaxte fi mu nekk nii match bi nga xamante ni moom la ñu njëkk a kon na match bu euh, métti te wan nañu que ni tournoi bi euh, du nekk lu yomb kon nag dinañ gën a xar suñu tànk tubay daal di gën a topp consigne yi nga xamante ne moom la ñu suñu coach di jox dëgg la ndoxteelu match bi métti woon na trop waaye nag li ñu li nga xamante ne moom moo ñu gën euh, jox fit moom moo di ñun ñooy dëkk bi dalal te yaakaar naa ne ci loolu lañu sukkandiku pour wax ni que ni waruñu def benn yoon erreur il faut que ñu xar suñu tànk tubay ci match bi te loolu moo ñu permettre ñu gën a tey jii ñu jàpp itam si laata jongante boobule amoon na beneen jongante bu doxoon itam diggante Mali Guinée Bissau dana sa tëwoo ku ne am benn sa ka ngi maram si poule A ci poule B bi nag tey Libéria mooy jongante ak waa Guinée ñeenti waxtu bu jotee la ca Thiès bu ñu ca noppee Mauritanie laale ak waa Sierra Leone ñu waxtaanee footballu góor yi ak lu jëm si euh, éliminatoire coupe du monde 2026 bi ñu war a jongante ak waa RD Congo loolu nag jàpp nañ ko juróom benn fan ci weeru euh, juin bi di ñëw senegal moom mi ngi ci góorgóorlu bu ca noppee day daal di jongante ji ak waa Togo wante nag ñi waa RD Congo ñoom gis nañu daal am na nañu ay euh, xale yu ñu jàpp ne duñ mën a bokk si jongante ak Sénégal bi ndax dañu am ay gaañu gaañu bokk na ci ñoom ay attaquant yu ci mel ne que Cédric Bakambu ak Silas euh, Katompa ñoom duñ mën a teew ndax dañu am ay gaañu euh, gaañu. leneen itam ci wàllu football bi ci réew yi mooy sénégalais yi nekk ca réew itali ca Brescia ñoom ay uh, at ngi dañoo baaxoo def lu ñu duppee uh, nawetaan foofa ngir ne dajalee uh, doomu sénégalais yi ñu bokk dajaloo kafre waaye itam ku ci nekk xamal sa morom ngir mën a jàppalante gi mën a leer kii di Abdoulaye Diouf Baar nekk kilifa ca mbootaay ma foofu ca Brescia bokk na ci ñu organiser xew maay mu ni mel nañ ko dégg depuis 2011 association sénégalais yi nekk Brescia et province dañ doon organiser ay nawetaan wante 2020 ba léegi amul ndax feebar bi fi amoon muy Covid 19 at bii dañ koy commencé waat ñoo ngi koy commencé le 29 juin au centre sportif ji De Paoli bi nekk Santo Eufemia ci Brescia mu dem ba début mois d'août 2024 activité de vacances yooyu nga xam ne dañ koy jaarale ci football dafa yàgg jàppale association bi muy ASBP à travers financement yi nga xam xam ne mooy yi nga xam ne association bi da koy jànkoonteel ci biir communauté bi pour fajal leen faj yenn soxla yi Kalidou Koulibaly déjà ànd na ak ñun ak capitaine du cœur ñeneen bonne volonté tamit contacté nañ leen ñoo ngi jaar ci seen rajo bi pour xamal ko autorité yi nga xam ne ñoo jiite état Sénégal ak ñi nga xam ne ñoo jiite footballu Sénégal yaakaar nañ leen pour ngeen jàppale ñu ndax dañoo commencé doon aw askan bu takku fii ci bitim réew te bari ay problème yu ñu war a faj ci suñu biir. yi nawetaan du ami sànni xeer mbaa toji woto waaye tëggi <laughs> tëggi ak pecc moodu moodu yeeg faatu faatu ya foofu ca asiko ya ca biir hmm. tribune ya alaaji loolu war naa neex. war na neex waaye comme tu dis rek euh, doo am sànni ça veut dire que foofu dafa am ay yoon dafa am euh, sanction. Euh, dafa am pénalité doo doo xëy rek ne lu ma neex def. wallaay naa yàq BRT naa yàq leneen. wallaay alaaj bu ñu yarul duñ développé de. Hmm? bu ñu yarul. Hmm. duñ développé. fu ñuy féete. ah dañuy nekk ne ay voie de développement wak émergence ak yooyu ki la ñuy hmm. toll mais duñ développé foog ñu yaru. di sa ngéem rek. waaw il faut ñu am éducation collective. waay waay am na solo. am na solo waaye nañ ko tàmbalee ci tout tànk yi am na ñoo xamante ne ñoom léegi ay emballage perdu la ñu <laughs> jërëjëf Malal rajo askan wi. ñu yegg seeg yéen mag leen di nuyu mbokk yi édition 2024 festival international de jazz de Saint-Louis euh, jeex na. nguur gi nag fas yéene léegi gën a gunge euh, Saint-Louis euh, Jazz bi jaarale ko ci ab partenariat mu di xibaar bu tukkee ci secrétaire d'État à la culture aux industries créatives et au patrimoine Bakary Sarr ci micro Ousseynou Diop. Saint-Louis Jazz bi yàgg na concept bu yàgg la. Euh, foo dem ci àddina bi euh, boo ne Saint-Louis euh, li jëkk a xalaat bokk na ci kon bu demee ba tollu nii am dayo bi au niveau national au niveau international état war na mën a taxawal beneen partenariat ak Saint-Louis Jazz pour gën a gën a doxal yëf yi parce que am na lu ci nekk loo xam ne en terme de créativité et de création d'emploi am na lu bëri loo xam ne mën na ko jóg parce que am na activité connexe yoo xamante ne ñu ngi greffé wu ci euh, Saint-Louis Diaz yoo xamante ne ñëpp war na ci mën a jot euh, surtout en termes d'employabilité des jeunes. ñetteeli édition festival Gorée Gospel euh, jeex na itam ni ki week-end gi ñu génn ay woykat jóge ci réewu Afrique yu bëri ñoom ñoo yëg ci kaw seen bi nag public bi am ci mbégte lool Salamata Ousmane Diallo fekkee na ko. ci tonalité musicale bu am solo loolu la ñu daal di dooree ñetteelu édition Gorée Gospel centre bi di wéy ci turu Juste Prime moom moo daal ubbi baal bi. ginnaaw moom humus jóge ba bi moom moo daal di ñëw yëngal public bi ak titram bi mu tuddee yàlla baax na. turu Yeesu Krista ñu daal di koy tudd lu bari yoon eh, ci boobu lekk festival jaarale ko ci woyu gospel daal di koy neexale ak variété musicale yu bari. public bi ñëwoon daal di wax ni mbégte rek la ñu am ci bileeg spectacle Virginie Gomis. franchement neex na trop am chaque fois de temps en festival Gorée Gospel façon la ci ñi nga xam ni dañuy daal di jël seen woy képp yëmale ko ci Yeesu ngir daal di koy delloo njukkal Rubia jow moom mooy ki taxawal bile festival. yàlla nañu war a woy yàlla nañu war a tagas yàlla nañu war a màggal initiative gospel bi c'est vrai que dañuy woy mais dañuy des fois gisee ñu ngi séddoo kàddu yàlla ndaxte nit ñi dañoo soxla soxla delloowaat seen xel ci yàlla. ñetteelu édition festival Gorée Gospel daal di nañ koy taarale ak ay prestation artiste chante yu bëri yu jugee ci Guadeloupe Congo Gambie ak yu nekk ci biir Sénégal ñetteelu édition bi nag ñu ngi koy daal di tëjee ak note bu neex jaarale ko ci musique reggae. mbokk yi fi lañu yem ci seen chronique culture di leen jaajëfal bu baax a baax ci déglu bi dig daje ëllëg incha allah